Tengue Tengue dafa décédé muy polémique buy circuler ci réseaux sociaux yi rawatina TikTok bu yàgg ba léegi ñu ngi koy tàggee nekkul fan yi rek waaye gis nañ ñu jël ay vidéo di ko kole ak ay keesu néew di ci wax naan dafa def accident décédé waaye Tengue tenge dara jotu ko moom nit ñaa ngi publier di wax dafa décédé moo ngi publier ay vidéo comme vidéo bi ngeen gis moo ngi ko publier dimanche 3 novembre 2024 ay 12 heures 13 heures la publier video bi te gisuñu ci kontam muy leeral décès bi nga xamante ni ñi ngi wax ni moom dafa décédé loolu nag nekk phénomène boo xamante ni dafa xew ba ci Sénégal gi dañuy gis ku siiw koo xamante ni dara jotu ko ñu créer compte di ko tàggee ngir lan am visibilité ay vie waaye daal phénomène bii mu phénomène bu bon la tenge tenge mi ñuy wax ni dafa décédé moom daa mel ni yëgu ko sax te tenge tenge xale yi dañ ko bëgg lool sax bu dee dañuy jooy ñu wan leen tenge tenge dañuy noppi